Euh, Aïssatou euh, peut-être rapidement foofu balaa may ñëw ci ci ci ci ci ci ci Diallo euh, da nga soutenir et on vous a longtemps suivi que que nga doon wax peut-être ne que Ousmane Sonko du du kuy jàkkaarloo ji ak ak Adji Sarr alors loulou fan nga ko déjà. waaw nee li nga ma

j'étais toute seule man kott boobu aji saar xewul boobu dara dara xewul ma toog ja téye micro bii jàkkaarloog sénégalais te boobu ba tey amul dara lu changé tous les jours que je yàlla dama won ne yaa ngi woon ci dëgg euh, Sonko wax naa ne dafa napp waa Sénégal ah ki mu njëkk napp mooy président Macky Sall naa ci dellu si <laughs> waaye moom aji saar moo ko napp Euh, xamoon naa ni du fa taxaw xam pourquoi du taxaw jàkkaarloo ak euh, euh, Adji Sarr xam nga le tribunal des hommes am na on le bien mooy li fi xew léegi y a aussi le tribunal de Dieu mais xam nga tribunal man ban laa jàpp ne moo gën a garaaw te ñu ñëpp ay gor lanu mooy celui la conscience xam nga tey nee ne yow dina am yoo xam ne def nga ko ñu bëri duñu xam ne def nga wala defoo mais yow sa sa subconscient moo dul may nga am ay pali yoo jéggi yàgg naa wax man ne man procès bi aji saara def viol am na wala viol amul pour moi yooyu c'est secondaire man euh, comme beaucoup de sénégalais ba ma déggee affaire aji saar sonko dama ne dañoo juum. naka. dama ne c'est pas possible Sonko. Hmm. teg tànkam. Sweet Beauté Sweet Beauté. moom ci boppam dégg naa ñu bëri di ko rappelé am na sax ñuy génneel vaar yi lu mu ñu ko wax damuma fa xaw ma sax xale bi mais man bu mu toogee jàkkaarloog àddina ne dem naa fa man personnellement sama intime conviction ci la pare parce que j'ai toujours dit man dama ma koy wax kenn waxu ko léegi ñëpp ñu ngi koy wax mosuma gëm man ay ay message thérapeutique ak yooyu mosuma ko gëm ndax damaa yàgg wax ne doo déglu tudd Sweet Beauté tour bi Sweet Beauté nga naan xam xam nga bu ñun Sénégal li ma wax tout le temps nee ne mm-hmm. nous de des dañoo gëm yàlla mais wóoluwuñu ko chaque jour ma wax ko parce que xam nga wóolu moy lan moy nañu bayyi ay far far lo fi la far ak kee fa far ku ne am droit far fu la neex man faruma ken sama bop la faral ak senegal ak deug mais deug moy li neex yalla fi ay goor ak ñoo fi ne wax yow dong ñoo fi jigen man goor mo saña taxaw ne sama ndig day metti damoo hôpital ku ne xam na luy hôpital nga dem fu tuddu suite beauté ngay da ngay faj mais kan nga mën gëmlo ci adina ne da ngaa dem ne Sonko dafa dem Sweet Beauté pour faju ji kan moo ko mën a gëm benn deuxièmement yow ngay kilifa fii ñi fi toog ñëpp ay kilifa lañu ma nee na ma man ak yow nee na ay jigéen lañu ñun xaw nañu xam tuuti man xam nga kenn du romb si mbedd fen gis ma ku ma gisul ci télé am na ñu bari ñoo xam ne xamul fàtte woon nañ parce que gën génn ci télé <laughs> ni ma gëj a génn ci télé nag noon laa dëxëñee sama bopp doo ma romb fenn man man duma ànd ak n'importe qui. Mm. te je le je le maintiens ànd ak n'importe qui du ma dugg n'importe où te simple jigéen laa tojuma fenn kenn nekku sama ginnaaw mais yow ngay kilifa au début dañuy jaayoon ne ibaadu la ku ne xam ne fii lu ñu wax ibaadu ñetteel bi nga yoon ñaari soxna li ma Moustapha Diakhaté du wax si tu euh, gorgi, bu deux mètres man je vis avec un malade mon mari est malade. dafa kiné mais tous les jours kiné kër ga dañu ay pauvres, ñu ñun ay ñoo euh, congrégation. ay hmm. pauvres ñu te kiné moo ñëw tous les jours ne ngi sama kër tey rek ñëw na kon fii Sénégal la donc yow ngay dem foofu nga dem foofu lu xew-xew mu togg di wax ay waxam man xamoon naa ni mm-hmm. du jàkkaarloog xale bi mais gis nga procès bi. mais mais est-ce que du lu xew ci procès bi euh, wax yu tegginewul euh, yi fa yi fa. yi fa mais il faut s'y attendre nee na loolu la xalaat. wala loolu la doon xaar xam nga parce que tamit quoi qu'on puisse dire kilifa la quoi qu'on puisse dire nee euh, wax naa ne ku bëgg akara da ngay ñeme kaani wax dëgg yàlla fii Sonko gënu fee. xëy na peut-être seer la nañ ma baal ah, noonu la bon je suis un peu vulgaire nag xaw ma na laa ko mën a waxee nu gën a rafet mais fii ay góor ñoo fi ne ñoom laay mboowa ngi ne moom laa gën a yëpp fi ñu fi nekk laay mboowa ngi nii moo gën a doy waar ñëpp moom mii laay a garaaw gën a doy waar ñëpp fii góor bala ngaa takk jabar da doxaan bala ngaa takk wujj da doxaan dañu xëy suba nga dégg benn kilifa laay mboow takk na ñaare nga ne waaw ci kan kañ la ko doon doxaan kañ la ko doon nangam surprise ngay am <laughs> mais yow góor kilifa fii ñoom ñëpp ay ñoom ñi ñi seetaan ngeen baal ma ñu fi nekk laay moo rek laay je prends laay moo comme symbole mais góor ñi nekk fii ñëpp kilifa yi ministres yeeg ñooñu mais chaque jour ñu def seen ay ruq ay bagages yu ndaw jël seen kii génn fii dem si ay petit ruq yu ndaw ndawaan sàcc sa bopp mais moom Sonko sàccul boppam daa waaxu dem demaat demati demati demati mais qu'il assume ça donc foofu déjà dégg naa ñu ay procès moral mais mais kan moo mën dindi moral si lu ñun lu ñuy def ñun lu ñuy def kan moo si mën dindi moral. Ah, mhm. nee mhm. procès bi. Mhm. bala ma kaa fàtte dafa am benn affaire boo xam ne dama fi neex. oui rapidement. waaw ah, dafa am dafa am lu ma si neex. loo xam ne il faut ma ma souligner ko. bala maa ñëwaat en profondeur ci man li ma xalaat. ci Sonko euh, Ndeye Khady Ndiaye. jigéen la. xam nga man wax naa ne Adji Sarr ba xewee ba xew. man maa far ak aji saar jigéen la may jigéen. Mm-hmm. wax naa tout le temps ñun nous sommes le sexe du faible. mënuñu si dara ko wax ci ndey xadi kenn jàppale ko. Mm-hmm. man dama koy jàppale. ndax jigéen la comme jigéen jigéen bu taxawee ne yow yaa ma def. man mm-hmm. dama koy gëm. oui ndey xadi jigéen la. dugguma ci euh, ay yëfam. ndax ku ne man gisuma ko ku sañ rafet lu am jabar wala rakk wala nang mu créé ay affaire yu mel noonu waaye keroog dafa def lu rafet. Mhm. ci euh, tribunal bi. Mhm. wane courage. xam nga ne ne man dama gëm courage man waalo waalo laa man duma ragal te dama gëm dignité gëm courage. ñeme mhm. nday xadi keroog lan la def. dafa ñëw seize avocats te ñun ñu ngi wax sànq ci presse bi mais ordre des avocats. dafa am fii cas d'école Ndeye Khady dafa ñëw ak état wam mais d'abord man waxuma sax état bi parce que euh, nekk en état du maladie tolluwaay la te moom li ma gën a neex mooy nekk fi di victimise naan dama biir rek dama lii rek dama naagam dañ ko forcé na ko toogal mu taxaw dëggal boppam ñëw loolu daw dans si ñëwaat Sonko dafa daw il a ça c'est la vérité dafa daw léegi kii xale bi Ndeye Khady Ndiaye mi ñëw taxaw ñu tuuma ko tuuma yu rëyul foor yoon mhm. mu ñoo taxaw jàkkaarloog àddina défendre boppam dëggal boppam ay avocat moom ñëw mhm. avocat yi lâchement ñu daw sollicité renvoi tribunal bi bañ man dama jàpp ne renvoi boobu ñu sollicité c'était peut-être profitable à Sonko mais Ndeye Khady moom elle était prête à se défendre te foofu man dama jàpp ne avocat yi fayu leen dama jàpp ne avocat yi xëy na fayu leen dañ dañ ko ko jëlal avocat yi ñëpp man koo dem la ko ci tribunal bi ko mettre d'office aussi mu refusé dem man dama jàpp ne uh-huh. dégg naa juge bi di wax di expliquer kii mais dama dama jàpp ne ordre des avocats dañoo war a jóg ci li xew keroog parce qu'il n'avait pas à Non, il n'avait pas, parce que un client, quand mhm. mhm. droit de défendre, criminel, défendre. Naturellement. Pourquoi c'est un taxi prévoir la commission d'office d'un avocat Il y a un avocat, nous commettre l'office, un micro, il Quand femme talk, talk. Les Ousmane sont D'accord. Mhm. là d'accord mais mais mais mais dinañ ci ñëwaat parce que nit tamit nit rek nga Aïssatou euh, quand même ñu jël yenn wax yi di ko sa kaw on va y revenir parce que sa fond pensée également dinañ waaw bëgg naa si ñëwaat loolu Dramé euh, euh, ñu ñu bari japon ne que fer ñu fa doon gis c'était plutôt ben procès moral mais pas procès pour viol oui Néné man ne maa ngi ñaan suñu borom bi ñëpp ñi nga xamante instant ni ñu ngi jappalé Adji Sarr fi ci réew mi yal nañ am doom bi melni Adji Sarr ken waxul amin de <laughs> ken amin donc li ma bëgg wax moy Ousmane Sonko c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise il n'a rien à prouver li nga xamanteni mom moy courage bravoure ce procès depuis deux ans ces gens ont tenu le pays en haleine ci ay débat yi nga xamante ni ay débat yu niveau yu faible Sénégal dafa war a dépasser fu ñu toll nii débat ñu war a am mooy débat économique débat santé li nga xamante moom la ñu war a def pour sortir ce pays dans le comment économique dans lequel il se trouve loolu moo amal nit ñi